benn juróom-ñeenti fukk ak ñetti dossier candidature la ñii di waa conseil constitutionnel jot ginnaaw bañ leen saytoo ca parrainage ya nag ñaar fukk ak benn rek ñoom ñoo ca jàll ñu war leen saytu ci fond bi ñaar fukk ak benn yooye nag jàll nañu ba ñu bokk ci liste provisoire bi nga xam ne ñii di waa conseil constitutionnel publier nañ ko niki le 13 janvier bi ñu génn liste provisoire boobee nag bokk na ci ay tur yu mag ku ci mel ni kii di Amadou Ba nekk premier ministre bu Sénégal ak ci mel ni Boun Abdallah Dionne ak kii di Idrissa Seck bokk na ci itam tur yu am dayoo ci ku jëkk Sénégal ku ci mel ni xalifa Sall ak Karim Wade mu bokk ci ay kanam yu bees yuy yëg ci wàllum politique ku ci mel ni Cheikh Tidiane Dieye Bassirou Diomaye Faye wala sax kii di Anta Ngom ak ñeneen waaye nag liste provisoire rek la ndax mën na wàññeeku ba tey ndax bëri na ay recours yi nga xam ne ñenn ci candidat yi déposé nañ ko ngir dal ci kaw ñenn ñi ñu Alassane Sall nga xam ne mu ngi sàkku ci conseil constitutionnel mu invalider candidature Karim Wade ndax double nationalité kii di Amadou Ba itam di attaquer candidature ñii di Bassirou Diomaye Faye ak chaque Tidiane Dieye ndax jàpp nañ ne parti bi ñu bokk dañ ko di dissoudre candidat yi nga xam ne dañ leen a recalé ci wàllum parrainage bi nag ñoom itam amal seen i recours recours yooyee mu bokk ci kii di Mimi Touré Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf nga xam ne ñoom ñooy jiite yu bëri te wute yi nga xam ne ñii di waa conseil constitutionnel war nañ leen a saytu laata ñuy fësal liste bi nga xam ne moom mooy wane candidat yi nga xam ne mën nañ dem ci campagne électorale bi ngir dagaan baatu askan wi loolee di wane ne liste 21 bile mën na yokk mën na itam wàññeeku ana kan moo ciy profité nag loole ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum de danañ tontu ci laaj boobe waaye lii leer ba leer mooy conseil constitutionnel moom benn bés rek moo ko dese ngir mu fësal list